El Hadj Malick Youm maa ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay Sabine di nuyu auditeurs yëpp yu Rewmi FM. voilà El Hadj Malick euh, Youm laaj bu njëkk di élection de représentativité syndicale yi ñu war a amal ci mois de mars bile euh, ma laaj lan mooy importance su euh, élection yu ni mel exactement. waaw xam nga dafa am ay jongante yu nga xam ne nii dafa am ci secteur éducation ñu koy wax élection de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation élection yooyu mën nañu wax ne. ne guléet mu ngi njëkk a am ci euh, Sénégal mën nañ wax sax Afrique ci secteur u éducation nag laa wax maanaam mu ngi fay soog a am fii ci Sénégal en 2017 sabab bi mooy dañu demoon ba ci biir secteur bi ñun ñu seetlu ne ah bu ñu demee toog di waxtaan ak nguur gi jàpp nañ ne day am lim bu jéggi dayoo ci ay syndicat yoo xam ne ñoom ñooy toog di waxtaan ak nguur gi ba nga xam ne sax demoon nañ ba maanaam déggoo sax du yomb ñu am ko demoon nañ ba nga xam ne maanaam mbiicoo ak mbaloo lay ëndi ñu ne ah kon jot na nag ñu topp xool naka la ñuy soppee doxalin soppi doxalin jàppoon nañ ne mooy ñu seet ni ñuy def ba bu ñu demee war a tase nguur gi bu dee rek dëgg dëgg dëgg dëgg ñun ñëpp syndicat yi jàpp nañ ne eh, wenn yitte rek moo nu yëkkati mooy taxaw ngir sàmm ak ak yelleefu jàngalekatu Sénégal kon kay maanaam sentu asamaan jarul buuxante kon ñu ne bu ñu tànnee ci sunu biir ñoo xam ne ni mën nañu dem taxaw wax ci waa ci turu jàngalekat yeeg syndicat yépp mais loolu dana baax dana tax kon ñu indi weneen doxalin ñu ne li ko mën a indi nag mooy nanu def ay jongante buñ ko defee ñi nga xam ne am nañ ci téeméer boo jël lim bi danañ ci am ñoom li ko daggee fukk jëm kaw ñu ne kon ñooñu xanaa jàpp nañ ne kon war nañu mën a toog ñoom waxtaan ak nguuru Sénégal surtout turu jàngalekat yépp léegi nag biñ ci d'accordé nu dem tëggu ko ci benn arrêté boo xam ne ministère du travail moo war a def jongante yooyu mu defoon ko 2017 kon gis nga ne solo si mooy foofu liñ ciy séntu rek mooy ñu gën a boole sunu kàddu ndax mu gën a mën a am doole beneen bi tamit mooy ñu gën a mën a ñoŋal ñun suñu liggéey ba nga xam ne li ñuy def dana am maanaam njeexital gu baax ah, gu mucc ay ci jàngalekat yooyu nga xam ne ñoom ñoo nu fal nu jiite leen tey. voilà euh, monsieur Youm am na ñuy wax ni sax euh, élection yii nii euh, état bi moo ko organisé c'est vrai que yaa ngi wax c'est depuis 2017 mais c'est pour contrôler syndicalistes yi di leen manipuler maanaam du ñu nekk ay vrais syndicalistes loolu loo si tontu. waaw xam nga loolu wax ju yàqu la rek maanaam euh, tey boo seetee euh, ñi koy wax noonu ñoom dañoo dama jàpp ne ñoom loolu ñuy wax ñoom sax seen bopp xam nañ ne loolu <laughs> wax ji amul wax ju amul benn maanaa la wax ju yàqu la ndax li fi am ba am mooy euh, tey boo xoolee dafa am sax ñenn ñuy maanaam xarab syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy syndicat yi dem di toog di wax ak nguur gi ñu koy wax waa G7 ma jàpp ne loolu yëpp amul solo xam nga la moom solo ñun ñoo ko bëggoon ñun ñii nga xam ne ñoo nekk ay syndicaliste def nañ élection 2017 ñooñu nga xam ne ñoo doon toog di waxtaan ak nguur gi def nañ fi lu jéggi dayoo lu am solo ndax boo seetee tey l'accord bii nga xam ne moom la ñu mujjee am boo doon seet depuis indépendance ba tey musu am guléet kon ñu jàpp ne kon loolu ñu def noonu indi xar kanam gu bees ci maanaam euh, ni ñuy toogee syndicat wu jàngalekat yi kon loolu lu am solo la waaye nguur gi amul kenn kum fi mën a contrôler parce que nag euh, jàpp nañ ne syndicat yi ñoom euh, jëm leen contrôler sax mooy da ngay yàq sa temps parce que amul fooy jaar ba contrôler ah kon loolu wax la rek bu ñuy wax surtout ñu koy wax sax des mooy voilà di wax ne ñi ñoom soit dañu dem ci joŋante bi amuñu. alors lim bi ñu laaj wala nga gis ñoo xam ne tamit ñoom dañuy jiiñ nit ñi noonu rek waaye li ñuy wax amul benn solo. Euh, léegi élection yi El Hadj Malick naka lay demee exactement lan mooy mode euh, scrutin bi. waaw léegi nag li ñu mën a joxe foofu daal mooy élection yi moom jàpp nañ kañ lay am ba pare ba ñun ñëpp daje nañ ba d'accord ci mooy daañ ko def ci weeru mars li ko tàmbalee. Euh, maanaam juróom-benni fan ci weeru mars jëm fukki fan ak benn boo xoolee sax li ci yees yees mooy dañuy indi li ñuy wax wote boo xam ne bi dañ koy sëf ci jëmtuwaayu xarala yi ñu ne kon loolu lu yees la ñu koy tudde vote électronique mooy wote ci jëfandikoo jëmtuwaayu xarala yi ñu ne loolu lu yees la am na nag ñu ne lu tax ñu nangu ko ñu ne waaw xam nga ñun ñoo wax nguur gi ne ko fi mu toll nii faw moom mu jëm jëmtuwaayu xarala yooyu ngir lépp lu jëm ci carrière jàngalekat bi ñu dindi ko régler ko ba mu gaaw te mu leer mooy maanaam lënt-lënt yooyu ñu siy seetlu ñu ne kon comme ñun ñoo wax loolu bu ñu retourné nañu yéen tamit lan ngeen wax ci woote bu nga xam ne ci jëmtuwaayu xarala yi ñu wan leen ne ñun d'accord nañ ndax jàpp nañ ne lépp lu di innovation lépp lu di yoon wu bees yoonu ngëneel maanaam enseignant wu Sénégal ñoom ñoo ko war di wane toujours parce que ñoom ñooy crème intellectuelle u pays bi kon loolu daal moo taxoon ñu ne loolu nañ ko nag mais nag. Mhm. teg nañ suñu ay conditions. dañ leen ne ñun balaa ñuy nangu loolu faaw ñoom seen bopp ñu am lu ñu matale li ñuy matale mooy ñu nga xam ne wote boobu dana dëppoog ñun liñ ci xaar ba benn càcc du ci mën a am kon wote na leer ñu ne leen tamit faw ñu teg genn kuréel goo xam ne gii. syndicat yëpp dañ fay am ku leen fay toogal leen mooy tamit ñëpp xam nañ ko Sénégal am na foo xam ne boo fa demee doo am li ñuy wax connectivité maanaam doo accéder à internet ñu ne kon nguur gi na fexe ba fépp fu waay woote ne internet bi na fa disponible pour moom mu mën a def wote boobu loolu daal mooy li nga xam ne nii ñun suñu ay condition la mm-hmm. mais loolu mooy yees yees bi ci wote bi nga xam ne nii moom moo war a am ñu jëm ci kii bi. te syndicaliste yëpp ànd nañ ci ci mode bi waaw wala déet Umar. waaw xam nga boo seetee ba ci biir mooy li ma. Mm. Mm. li ma mën a jàpp daal mooy ñun SAEMS e ñun d'accord nañ ci wote électronique waaye dañ ci toftal suñu ay conditions yoo xam ne nii bu ko nguur gi matalee ay la yowén na ànd nañ ci bu ko matalewul ànduñ ci te matale googu wax nañ lan la mooy problème connectivité bi na ko régler mooy na régler li ñu jëm ci wàllu kuréel gi ñu war a teg ñu koy saytu mu leer leneen li mooy mu assurer que ne genn càcc genn luubal du ci am ñett yooyu moom moom ay conditions la yoo xam ne nii moom moom la ñu teg ngir wote boobu mën a mën a jàll. voilà monsieur Youm mën nañoo am yaakaar ni euh, année scolaire bu ren bi euh, dina stable wala. waaw xam nga dal gi moom ci l'école Sénégal dañuy wax ne. ñun de mooy suñu bëgg-bëgg waaye nag benn syndicaliste du mës a taxaw ne ren école bi dana dal lu tax parce que dal bi objectif la boo xam ne bii maanaam lu ñuy dàkkantal la léegi nag li ñuy dàkkantal dafa am tamit lu bëri lu war a mën a mat ngir loolu mën a nekk li ci jiitu ci li war a mën a mat nekk na maanaam jëmmal déggoo yi nga xam ne moom lañ xaatimoon ak nguuru Sénégal léegi jëmmal boobu boo xoolee fi mu toll nii am na lu ci tàggatémbe moo tax kenn mënu la wax ne kon maanaam ay lënt-lënt du am ci at mii nga xam ne moom la ñu ne lënt-lënt yooyu li ci jiitu bokk na maanaam décisionnaire yi nga xam ne ba léegi seen situation dafa tàggatémbe nguur gi war a xaatim benn décret te ba léegi defagu ko nga toftal ci situation wu MEPS yi nga xam dañ leen war a jël dugal leen ci beneen hiérarchie beneen corps ba léegi defaguñu ko nga jël ci tàggat gi ñu war a tàggat professeurs yi jàngale philosophie te amoon ay lijaasa ci sociologie tàggat googu yembagul nga jël tàggat gi ñu war a tàggat professeur contractuel yi ñu recruter woon daaw ci recrutement spécial juróomi ju junniy jàngalekat yooyu ba léegi ñu ngi xaar nga toftal ci ñi ñuy wax ay chargé de cours muy ay ñii ngoo xam dañ daan jàngale ci école élémentaire yi ñu yóbbu leen ñuy jàngale ci lekkool yi diggu doom yi ñu war leen tàggat ba léegi nguur gi defagu ko nga toftal ci nag yeneen poñ yoo xam ne nii jàpp nañ ne foofu tamit li ci tagatémbe bëri na mooy yéex-yéex yi nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, ni ñuy toppatoo carrière jàngalekat bi ñu koy wax lenteur administrative foofu tamit li fa sooxe bëri na parce que ba léegi nii jëmtuwaayu xarale yi ñu waxoon ne moom la ñu war a indi ngir woyofal loolu des na am na lu ci des kon loolu yëpp boo ko boolee moo lay wan ne ah tey de dal ci école lenn rek moo ko mën a indi mooy nguur gi matale lii yëpp mu wax te nag loolu bu ko matalewul moom ah jàpp nañ ne kon dana indi ay jafe-jafe kon ba cëgg lépp a ngi ci cëgal guyu nguuru Sénégal moom daal moom comme moom lañ dénk suñu politique publique éducative moom moo war a xool nu muy def ba matale lii nga xam ne nii moom la ñu soxla ngir yépp mën a yemb ngir école bi mën a dal. waaw ci loolu ba léegi est-ce que jàpp nga ni kuréel gii di Haut Conseil euh, duy dialogue social am na njëriñ euh, waaw wala ci grève yi nga xam ni yéen a ngi koy def wala taxawaay bi mu war a am ci seen diggante ak état waaw kuréelu Conseil du dialogue social am na njëriñ xam nga li tax am na njariñ mooy maanaam bu ñu delloo ci moom li nga xam ne nii moom lañuy xaar ci moom mooy dafa war di. gën a indi diisoo diggante ñi nga xam ne ñoo seq euh, maanaam liggéey ci Sénégal diisoo diisoo la war di dox te xam nga diisoo moom dafa am solo ci lépp diisoo moom bu ñu ko defee njariñu askan wi lay doon diisoo bu ñu ko defee dana indi déggoo kon moom kuréel googu li muy liggéey am na solo léegi li ñu war a seetaat rek mooy maanaam Euh, ndax kuréel gi tey am na indépendance totale maanaam ndax moom na boppam ñu ne ah foofu am na lu ci sooxe ndax bu ne kuréel gi dafay nekk kuréel goo xam ne gii tey dañ koy jël toftal ko ci primature wala ñu toftal ko ci benn ministère ba bi ñu koy créer ba léegi wala ñu toftal ko présidence ba pare ñoo ñu jox ko maanaam budget kon ki la jox budget dañuy wax ne kon Euh, ki ki la abali ah mais fu leen a xoolal fa ngay xool ñun loolu lañ ciy bañ moo tax ñu ne kon dafa war a gën a am indépendance am budget boo xam ne bii bu ñuy def budget général ñu defaale budget moom jox ko ko su boobaa tamit ñu jox ko bàyyi ko indépendance totale mu doon une autorité indépendante boo xam ne bii maanaam bu waree def arbitrage du am kenn ku koy obligé mu jaar gauche wala mu jaar droite loolu lu am solo la lu ñuy xaar ci ay wàllu réforme pour que structure boobu gën a mën a am doole gën a mën a am indépendance. dernière question monsieur Youm di euh, euh, seen ministre euh, Cheikhou Marane est-ce que jàpp nga ne mi ngi gérer bu baax euh, ministère bi waaw wala déet. waaw xam nga nag ñun ci xeetu syndicalisme bi ñuy def maanaam mën nañ wax ne ñun euh, jëmm nit ñu loolu li ñu yitteel ñun mooy système. li ñuy yitteel mooy département ministériel yàlla nag dogal na ministère de l'éducation moom mooy employé ñi ñuy wax jàngalekatu Sénégal kon ñun bu ñuy évaluer wala ñuy wax ci dara dañuy wax ci ministère bi nga xam ne moom moo ñuy suñu ministère employeur tey jàpp nañ ne ci ministère boobu am na changement bu fa am maanaam am na lu fa soppeeku maanaam ci jëwrin ju yees ju fa ñëw depuis septembre léegi nag buñ doon xayma li fa xew mooy dañuy wax ne seetlu nañ ne ba mu ñëwee léegi ndaje ngir toog waxtaane lépp lu jëm ci wàllu njàng ak amul amul ndaje moomu pour ñu toog ne dañuy waxtaan ak moom xóotal waxtaan wi saytu lépp li jëm ci njàng njàngale amul kon ñun jàpp nañ ne ba mu ñëwee rek li mu njëkk a def mooy dagg na maanaam diisoo bi nga xam ne mii moo fi amoon dakkal na ko ñu jàpp nag ne kon diisoo boobu dagg ci diggante syndicat ak ministère bi baaxul ci système bi ndaxte dana indi euh, euh, réero dana indi ay lënt-lënt yoo xam ne nii mën na indi safaanu li ñu bëgg ñun. beneen liñ ciy toftal tamit mooy am na ay lu bëri bëri bëri lu tàggatémbe ci biir njàng meeg njàngale mi lu jëm ci tàggat jàngalekat yooyu may wax ah, tey boo jëlee jàngalekatu philosophie seen euh, tàggat gi dafa tag mu nga fële tàggatémbe te fanweeri million rek la ñuy xaar ngi def loolu waa Pastef sax wax nañ ne ñoom bu ñu gisul lu ñu xam fii ak mois de mars ah loolu kon du mën a nekk te ñooñu ñëpp xam nañ lu tax parce que année scolaire tamit pour mu valable année académique dafa am nombre de mois yoo war a jàng loolu yëpp di ay poñ yu am solo yu tàggatémbe yoo xam ne nii tey seet nañ ne moom bi mu ñëwee la maanaam yooyu yëpp di ay lënt-lënt ak ay difficulté yu majeur am ci ministère bi ñu jàpp ne kon faaw ñu toog waxtaane ko ngir indi ci ay saafara ci nu mu gën a gaawee balaa muy indi musiba ci biir système éducatif bi. voilà El Hadj Malick Youm euh, Rewmi FM mi ngi lay euh, remercier. oui Sabine ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm auditeurs Rewmi FM. voilà may fàttali yow yaay secretaire général bu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire euh, du Sénégal di SAEMS. E jërëjëf Sabine.